xalaas maa waaru aw jakartamaan bu nu faat ca Thiès di mbokk wala jigéen ñaale ci ki nga xamante ne moo di Bella seen di aw artiste wax na nag ci waa ji nga xamante ne moom la faat li mu xam ci moom ak itam lan la ci bëgg mu nekk comme dogal mbokk yi dañ leen di bàyyi ngeen teewlu Bella vingt ans moom sama rak ñuy sànq mooy sama rak moom du lekkee sax fii bu xëyee fajar day déggi jabaram ñëw suñu kër man maa koy daggal mburu ndékki su ma fa fekkul mën sama sœur bi indi ma ndékki suñu kër lay defee lépp jotewul a kenn tuxul naanu fréquenté wul nit ku bon man musuma koo gis mu fréquenté nit ku bon wala nit ku indis musuma koo gis te suñu kër la dëkk jour bi muy desee de suñu kër la yenn sama belle sœur moo gaañu wal yàlla jabaru Mamadou maa ngi koy jaal bu baax a baax wallu moom moo ñëw fekk ma ma toog di ndékki moog tuutaa mu toog ci sama wet daan ma àdduna bi jeex na ba pare quoi man ko lu xew mu ma wal moo gaañu dama kaa saaga sax man ko wal yàlla wal lu ko dal mun ma wal yàlla gaañu man ma bàyyi ko fa moom moo toog karaf di moom moo dee ci kër ga sax ma sama rakk yi ma bàyyi leen fa man dem ci dëj bi ba ci gudd gi ñoo toog ba minuit ñoo toog ba minuit ndax kër ga chaque jour tëdd ko fay jëlee heure tëdd ndax moom nekkul jakartaa yi ne ci tali bi nii di daw moom nekkul jakartaa yooyu ay abonnement la yor ak ak ay ay di dawal maire bi di dem di ñëw àndul ak kenn dara dara dara dara dara mosuma koo gis mu ànd ak nit bu indice mosuma koo gis mu ànd ak xarit bu bu lëndëm ku dul jàmm gën gi mu dëkk waa jàmm gën lay àndal bu jugee jàmm gën suñu kër lay ñëw bu jugee jàmm gën demul fenn suñu kër lay ñëw mu toog ba min bi mu woo sama rakk bu góor bi parce que jakartaam dafa yàqu bi jakartaam yàqu promoteur am raxas ko ci buntu kër gi mi ngi toog a xaritam mbay caam ñuy affaire kii ni ay agression mu naa man de du daw guddi huit heures damay arrêté wax na dëgg huit heures ñëw buntu kër ga gaare du daw guddi mu mu gaari bunt kër ga raxas moteur ba moteur bi set mu wéer ko ci biir kër gi noonu daal di àbb sama frère bi jakarta kooku dem atelier ci fur waxtaani mu di ko woo di ko woo kooku ñëw jël jakartaa bi jox ko jour boobu nag moom dafa teel a ñibbi ndax ñoom fa lañ daan toog ba ba minuit une heure fekk naa ko ci buntu kër gi mu toog ma ne ko ippo bu subaa nga doxal ma course parce que man sama lépp ippo moom ma koy doxal sama lépp moo koy dox laay yónni parce que man sama rakk bi yor Jakarta caloreur la moom jakartaam daf koy liggéey de mais man sama lépp ëpp moom ma koy doxal sama lépp ba ci xaar mi ma yor sax su ma demee tournage dafa fanaan wala dara mooy jël xaalisam dem jënd ngooñ su ma dikkee ma remboursé ko lu ma war a dox ma xamal lépp lépp moo ma koy doxal lu ma lu ma war a dox lépp lépp laa yoon moom moom ma koy doxal suñu kër bu dikkee day jubal sama néeg jël pañe mburu bu ndékki amul limite suñu kër day jël pañe mburu bu ndékki dem bu añ jotee dañ koy may sax añ mu jël jakarta bi dem sama frère bi yeewu bëgg a liggéey di ko woo jotu ko mu ñëw fii nee na laajte ñun ko Ipo nekk fi mu mer daal Ipo mi ngi yor sama jakarta fekk mu ni day dem si si sama robu belle-sœur bi wala yàlla mu ngi xas sama rakk bi ci guddi bi naan ko mambutu seen mag la te dafa baax dafa bëgg mbokk subaa nañ leen dem Touba Isma ne ko ban ngay dem Touba mu ne ko bu ñu yeewoo fajar nañ dem Touba loolu ko bu ñu yeewoo fajar dañ dem Touba ndax maam Mbutu dafa baax ñu kooku jox ko caabi jakarta bi man maay tëj chaque jour dama naa boo leen di tëdd yee leen ma ndax téléphone sama néeg la koy chargé bu leen tëdd yee leen ma minuit keroog la jël jakarta bi mu dem ñibbi kooku yónni doomam ni ko neen Ippo ñëw naa fa sànq gisuma ko na ma jox sama jakarta kooku jëw daw ay xel ñëw ni Ippo deen lii lañ ci am lii lañ ci am mais jël na jakarta àbb na ko jakartaawam ni ko dafa am lu may doxi su ma yeewoo fajar naa jël caabi ji joxal la ko sagar te moom ant kenn koo xamante ne nii di ko gis sax ah mu boog mosuma gisal te suñu kër la dëkk mosuma koo gis ak vraiment mooy bàyyi na njaboot bàyyi na soxna bàyyi na ay doom mu metti lool ñu déglu ko ba tey belaa seen mu continuer ay kàddoom. lii ku mu dalul sa kaw mënoo ko xam mu toog naa ba ci yàgg sama xol bi metti ma ne waa ko dem Aziz Dabala lii lañ doom yëg lii lañ doom yëg parce que bu fekkoon dañ ne dafa feebar dee na da xam ni yàlla la. fekkoon dañ ne accidenté na da nga ne accidenté na mais rey nañ ko lu tax ñu koy rey lu tax rey ku bëgg a rey nit rek nga rey nit mu neex ci yow nii après ñu ñu tëj la benn un an deux ans say mbokk wutal la ay kayitu dof ñu lay yóbbul añ ngay añ di reer di tëdd fu nooy ku rey nit dañ laa war a rey ku rey dañ laa war a rey parce que ki def lii xaw ma lu tax mu rey ko xaw ma lu tax mu rey ko mais métit bii mu teg waa jàmm gën dara waru koo jar ci àdduna dara waru koo jar ci àdduna ku rey nit dañ bi jakarta amee ba léegi ay rey yu ñaaw rek ngay dégg rey yu bon rey yu metti jakarta damaa foog dafay dugg pour toroxal nit ñi xanaa wala pour lan te boo waxee ñu ni boroom kër yi dañ ciy liggéey munoo leen ko aaye parce que dañ ciy daw seen soxla mais xale boo jàngul métier jàngoo dara bëgg am xaalis noo def nga def lu bon mais ku rey nit ñu tëj la ci kaso bi ngay lekk di naan loolu dafa yomb xoolale dal Aziz Dabala barki démb léegi lan leen def ñuy lekk di naan après ñu ne di yóbbu lekk tëdd bu tëdd jotee nga tëdd bu nelaw yeewoo nga yeew fii la am taax kaw ñu rey la taal la après say mbokk def nan léegi kii bàyyi ñaari doom yi ndaw doomam yi ñu ngi toll ci dugg école doomam démb fii lañ yenn di ko laajte bàyyi jabar ju tuuti mam yi doom yi di daw di song sama rakkee yooyu naa leen ana ippo est loolu neex na ci xol mu nekkoon nit ku baax ci seen biir kër nekk nit ku baax ci koñ bi amul ko ko fi jooyu ndax ippo dafa yaru disponible koñ bi yëpp moo leen di doxal course du mer du dugg ci yoonam nekkul tuxul naanu après nga rey ko nii après mu jeex ko quoi kooku xëy na kon leneen na na moon ci moom lu dul ay jakarta leneen la na moon ci moom mais yomb lii dafa yomb après même buñ ko jàppoon tey dañ koy tëj dixième gi donc wala ñu yóbbu ko rëbës tëj ko fa ay mbokkam buñ ko bëggee seet dem wuti permis ñëw seet ko gis ko wax ak moom bu añ jotee ñu indil ko añ bu reer jotee ñu indi ko reer loolu dafa yomb koñ bi musuma fee dégg lool dégguma fi xale bu góor bu dëng gisuma fi xale bu góor buy tux gis ñi taxaw ñëpp nga interroger leen moom moo tax ñuy fréquenter suñu kër moo tax ñuy fréquenter suñu buntu kër musuma leen gis ñu xuloo te suñu kër la ñuy nekk musuma leen gis ñu xeex musuma leen gis ñu tox musuma leen gis ñu naan yàlla yàlla rek a ma tax di wax gisuma ko mu ànd ak benn nit bu indice wala mu dugg ci dara loo xamante moom dafa ragal moom dafa ragal moom xuloowul xeexul moom dafa ragal loolu ñëpp ko ko mën a seedeel fii ci koñ bi naqar bi mu teg nit ñi yàlla na ko yàlla weer parce que lii lii dafay yomb lii président Diomaye war na cee jug lii war na cee jug ku rey nit bu ñu defoon ñaari bu ñu fi reyoon ñetti nit ba ñeent ku rey nit rek ñu yóbbu la place de l'Obélisque woo nit ñi di la teel bal nga dee xam ne say mbokk ñëw taxaw ñu xool ñi mbokk ñooñu lan la ñu dajoon dinañu xam ne rey nit met na ku rey ni dañ laa war a rey ku rey ni dañ laa war a rey kàddu gu mujj gi mooy di ko ñaanal vraiment di ko ñaanal ndaxte rey nañu xale bu baax rey nañu xale bu baax a baax a baax a baax rey nañ ku jàpp ñàmburam rey nañ ku duggul ci dara rey nañ ku tuxul naanul disponible ci problème mu nit ñi xulowul ak kenn xeexul ak kenn kenn kenn ippo deful dara dara dara loo xamante ni nii man maa jaaxle maa jaaxle yàlla xam na ko man ma sama xol bi dafa metti sama xol bi dafa metti te mënuma ci dara lii mënuma ci dara dara dara dara dara dara yàlla na ko yàlla yërëm yàlla yërëm. amiin amiin ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm di kaddu yi nga xamante ni moom la Bella mujj yëkkati rek jagleel ko eh, ki nga xamante ni moo faatu di daanaka eh, rakkam ndax moo ko rakkam ñooy ànd loolu yàgg na depuis vingt ans loolu du benn fan du ñaari fan du benn weer du ñaari weer waaye li mu ci wax itam dégg ngeen ko donc ay nit itam li nga xamante ni moom la bëgg tamit ñu teg ko ci dëkk bi mu nekk ab loi boo xamante ni dañoo war fexe rek ba eh, képp koo xamante ni rek faatati nga nit ñu daat la faat buñ la xam xamee ndax affaire bi dafa metti bala nga koy xam dëgg ñu faat koo xamante ni dalaa jege sa proche ci ngay xamee dëgg dëgg que ni eh, faat dafa metti ah te jàpp nit rey ko ci maari furo jàpp nit man daal dama man li ma mënul comprendre mooy lan mooy problème mu sénégalais yi ci rey gi nga xamante ni moom la ñu jël rek ñoom def ko arme ñoom daal léegi xeex dañ doon njëkk bu njëkk dañ doon wax naan ñaari nit xeex nañu ah diw de xeex xeexam mi métti na diw de nangam dañ ko agressé jël nañ moto ba diw yóbbu nañ nangam mais diw ray nañ ko yóbbu nañ moto ba diw ray nañ ko def nañ lii diw ray nañ ko def nañ naa waa léegi loolu moo tax loolu lan moo tax rey yi bàyyi ci réew mii faaw nag ñu wax ci nag jël ci ay matukaay ak ay dogal man j'accepte que nekk ci élection yi j'accepte que ñu ñu am ay député j'accepte yëpp dëgg la baax na bëgg na loolu yëpp baax na topp nit justice ci wàllum ku lekk alalu askan beeg corruption nangam na yooyu yëpp d'accord naa ku wax loo wër te wax ñu jàppale tëj yooyu yëpp d'accord naa mais justice na wax ci rey gi ma ne yoon na wax ci rey gi lii dafa ëpp trop c'est trop sama xol bi jeex na tàkk gars yi ñu jox leen dig daje ba subaak jàmm ci xalaas maa waaru damaa jommi fi mu toll nii